asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa Malang Sarr dafa signé Monaco aw ma temps nag def ci vidéo tey nag ma naa wax ci moom parce que franchement mën na nekk actualité ndax ñëpp xam nañu ni Aliou Cissé ni mu bëggee Malang Sarr bi mu nekkee Nice ni mu ko toppee woon mais dem na ba benn moment xam nga donc waxoon nañ ni sax euh, si sélection yi mujjee mooy woon ci bunt bi dafa waroon a ñëw mais lan moo tax Aliou Cissé convoqué ko di convoqué benn Abdoulaye Seck wala yeneen joueur moom na mii di Malang Sarr ma seetaan benn interview bu mu def maanaam la fekk mu signé di ko def de Monaco dafa wax euh, xam-xam bi mu jëlee Angleterre xam-xam bi mu jëlee euh, lii di championnat Portugal neena beneen malang saar lañu am te inshallah ren ji bëgg na franchement wone bu pam ba képp ku xamante ne eh, da nga doon wax ne malang saar tàngul mun nga gis ne non seulement progressé na te waa mënaa koo tamit ñu am satisfaction mu nekk ay cadre yu xamante bi mu ko déggee dama ne voilà malang saar alu si boo ko bëggee amaat xam nga donc fi ngay jaar parce que Aliou Cissé dafa mës a bëgg le profil mais dem na ba baye mbir yi sedd suuf ñep xam nañ né jamono bi man def na sondage ben défenseur mo wara ñeu ñëw concurrence Abdou Diallo ma tek Ousseynou Ba teg Malick Thiaw teg xam nga Moussa Ndiaté tek Malang Sarr ak yeneen joueurs mais bi ma defé sama sondage plus de 90% ñep ki lañ votel Moussa Ndiaté parce que patriotisme bi mu wanee du côté de euh, fofu du côté de fële na lee Mayence maanaam bi mu nekkee championnat Allemagne Bundesliga wane na carrément dafa bëgg jouer Sénégal mu signé euh, Nottingham Forest ba mu def début euh, saison bu excellent surtout contre euh, West Ham bi nga xamante si la amee gaañu gaañu malheureusement ne mu am benn gaañu gaañu bu xamante ne mën na ko sax xañ coupe du monde du coup Malang Sarr mën nañu nekkaat actualité ci kaw nag mu jéem a reconquérir kii di Aliou Cissé ndax Aliou Cissé connaît le profil bëgg na ko mais dalay xaar mu am temps de jeu du côté de Chelsea am fa temps de jeu te moom nee na ren jii dafa ñëw Monaco pour dooleel seen équipe non seulement en défense mais wane boppam wane qualité yi xamante ne mooy nelaw ci moom ba tax mu ne Malang Sarr nag franchement euh, xam na championnat bi xamante ne dem na fa muy championnat France on sait que Monaco actuellement c'est très compliqué gis ngeen ni tok euh, préliminaire Ligue des champions xam PSV tok lo len gis ngeen euh, dernier match championnat c'est compliqué xam nga len leen jël lance pas leen fekk dóor len donc Malang ça am na sens, pour reconquérir qui est Aliou Cissé le profil Malang Sarr daf ko intéressé par son intelligence par ses déplacements man mii di Mouhamed rek sur YouTube souvent damay génn ci mi ñi ni di ma arrêté Mohamed bu venu si Malang Sarr na tàng dafa nonchalant mais le gars a carrément progressé je pense mentalement donc il a progressé footballistiquement parlant là. fait que le mu Portugal ak des de femmes un autre football progressé na bu baax baax le fait que mu côtoyé benn Thiago Silva benn Rudiger ak Thomas Tuchel ça l'a fait progresser objectif yi fa nekkoon xam donc tout ça pour dire que moom am na mille sens pour conquérir kii di Aliou Cissé ndax ñëpp xam nañ ne bu fekkee convocation waroon na am si sélection yi di ñëw Moussa Ndiakhate lañ doon convoqué parce que Aliou Cissé reconnaître na si benn interview bu mu def ne moom ak kii di Moussa Ndiakhate wax nañ téléphone te prestation yi Moussa Ndiakhate doon def nii mayoon na que bii ñu convaincre du côté de l'équipe nationale du Sénégal vu que qui di Abdoulaye Seck du côté de Antwerp dem nañu sax ba écarté que et que pendant ce temps Moussa Diakhaté moom doon wone bopam donc Malang Sar franchement euh, ñoo ngi lay xaar bu baax baax nga wone sa bop 23 ans euh, gaucher franchement moi limay wax euh Aliou Cissé Abdou Diallo gaucher donc euh, bo amé benen remplaçant gaucher day tax tey jii dans un match. boo tegee si benn stratégie benn équipe tey jii benn Abdou Diallo bu mën nga remplacer Abdou Diallo par un autre gaucher donte Moussa Ndiakhate c'est le bon profil je trouve mais Malang Sarr aussi tamit jarul teggi jarul xeeb c'est un jour boo xamante il n'a que 3 ans il n'a que 23 ans autant pour moi ñu bëri dinañ ma ton ci commentaire yi mais voilà 23 ans rek la am xale la mën jouer gauche xam latéral gauche pour mën jouer axe donc mën ko bay xel en tout cas bal bi mu ci ay camp bu woné bopam def ay prestations je pense que même ñi xamante dañ ko mere woon même ñi di wax né dafa nonchalant dinañ gis ay qualité yu xamante ne dinañ intéressé bañu wax né war nañ ko mën a convoquer lii di équipe nationale du Sénégal en tout cas moo ngi fi moom ak ñoom Ousseynou Ba ñoom Malick Thiaw ak yeneen défenseur bëri nañ lool macha allah mais c'est à lui si c'était tranché espérons que rek mu jël décision bi gën pour l'équipe nationale du Sénégal. mbokk yi lii moo nekkoon vidéo ma nag sax parce que jot moon am temps bi mu signé Monaco ma def ci vidéo wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis si le choix Monaco ah, est-ce que dañ ko a convoquer bu fekkee dafa def ay yenn prestations en commentaire ku si nekk ne joxe opinion keneen man si jaruñu man aussi ma jaruñu si maa leen di jaajëfal ne wax ba beneen sur Senfootball TV